salaamaaleykum mbokk Pikine di nuyu waa diaspora bi surtout les Pikinois de la diaspora di ci nuyu képp koo xamante ne yaa ngi may béggee man maa ngi lay béggee di ci nuyu tamit euh, surtout ñi nga xamante ne euh, ñi ngi may euh, nemmeeku ci li nga xamante ne mooy ci sama tawat bi donc en grosso modo commencement bi loolu laa njëkk wax nuyoo saafoon teg ñi nga xamante ne ñoom ñooy auditeur ak ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy euh, seetaan Ovision nga xam ne ñoo ñëw seet si ma tey ci li nga xamante ne pour waxtaan ak man ci sama li nga xamante moom mooy li ma dal daal.

mais su ma demee su ma bindee tuufaay su ma ko employé après affaire bu bàyyi xam nga rek ma ne wér na rek garaaw ma bàyyi noonu daal pratiquement soo ko xoolee ci deux ans yi daal ci laa ko sentir ba nii mu accès nii daal parce que un homme doit être surtout mentalement ak façon maladie bu la mën di jot peut-être am na yoo xam ne bu la tëralut man nga dox man nga wax man nga dem yaakaar naa ne boo amee conscience boo xamante ne c'est un peu forte maanaam nga am un mental de fer peut-être war nga mën a jóg di dem sa place liggéeyukaay comme par exemple ñun ñi nekk nga xam ci communication surtout côté animation bi may def bon man su ma yëpp branché parce que foo def vingt deux ans yaakaar naa ne war ngaa xam fii fa nga jaar ak fii fi nga fi ak fa nga war a taxaw ak fi nga war a toogee ak surtout nag côté communication bi parce que communication boo ci yàggee da nga am loo xamante ne moom mooy kàllaama bi dicton bi da nga xam ni ngay waxee da nga xam fi nga war a waxee ak li nga war a wax. ci dee ci côté animation bien avant mooy nekk ci rajo sax.

pratiquement c'est des musiques anciennes. Il y a 72, 70, 80 Mais que ce soit sénégalais, que ce soit rythme blues, que ce soit salsa, affaire de Parce que je fais de 16h à 19h tous les samedis. Je suis en train de faire technique avec l'état de peut-être. Mais je suis en train de comme ni ma ko mën a waxee parce que tëralu ma tëral boo xam ne du ma mën a bouger daal mais nak so ma xolé ni da nga naan biram essayé eh, sauf suma taxawon ak yow ni do xam ndax man jee amna problème bët ak yow mais yow da nga comprendre so so ma gisee. donc quand il s'agit de ñi nga xamante ne ñëw nañ fi seet bay fi sen wax mais dafa bari ay façon seet. seet seet nit dafa bëri ay façon seet am na ñoo xam ne dañuy ñëw rien que pour xool biram ndaw lan moo ko dal am na ñoo xam ne dañuy ñëw maanaam loolu moom mooy dañ kumpa bi daal comme ni ma la ko expliqué mooy dañ kumpa biram ndaw mi may dégg ne bëtam yi xoolatul nan la demee noonu da ngay bu ñëwee bu waxtaan ak yow ba dem rek da ngay xam ndax kii looloo ko yëkkateem déet am na ñoo xam dañuy ñëw du la sax mën a xool dañ fi nekk di jooy ak benn kii am na ñoo xam ne dañ fay ñëw di jooy grand Ablaye Ndiaye bi nga xamante ne moom ak sama mag mooy directeur stade bi fii ànd ak monsieur le maire Timbo Timbo fii Ibrahima Ndiaye toog fii toog ba léegi il n'a pas sa bouche parce que dafa nekk di jooy nga xam ne kii am na foo xamante ne mooy moom am na fu ko fu ko fu ko sama feebar bi agsi bon ci woykatu Pikine nag du ma la ko nëbb ki nga xamante ne dawal na otoom ànd ak waa këram Pape Diouf fii ma toog nii fi la toogoon mu ànd ak Zora Mbaye ma jaaga mu toog noonu ànd ak Ibra Gueye borom balance d'or ànd ak ay rakkam yu góor yëpp képp kuy rakkam la wax ànd naa ak moom ñëw ak ki nga xamante ne moom moo yore communication muy buur woon bi mu fi ñëwee moom ba ma ko xoolee ba ma ko xoolee sax da koy xool xam ne kii affaire bi am na fu mu ko tuuti parce que daf ne ma doo ci wéet xam nga. ne kita nag li tax teelu ma fee ñëw dama nekkon tourné te xamoon dafa nekkon tourné mi ngi won ay digënté France ak États-Unis bo mi ngi doon préparé affaire u euh, kiyam bi nga xamante mom moko jël en charge guddinu tollu mom moy euh waaw moom mooy kiyam kiyam bu bi labelam bu bi donc je l'ai compris mais expliquer expliqué parce que pas mal de gens m'ont demandé est-ce que Pape Diouf n'est pas man Pape Diouf mais il n'avait pas il n'avait rien compris peut-être après par la suite bi mu fi ñëwee ba ba vidéo bi dañu doog a xam ne fi heureusement bi mu fi il a trouvé ma famille qui était là Mon neveu Idrissa avec son sama belle cousine C'est mon cousin Idrissa avec avec sa sama cousine bu ñuy wax Yacine Niang ak doomam ak ñu ñëw fi ñoom ñëpp di ma seet si faat fi la leen fekk donc euh, man euh, man du dig-dig parce que su ma la waxee ne ki ma yóbbu ñëwul fi ñëwul fii de soirée de gala la woon calebasse de l'excellence le premier janvier bii passé moo amoon stade Alassane Djigo bi ñu joxee trophée yi ou ma jox sama trophée papa Amadou le producteur l'organisateur de Calabas de l'excellence que je salue de passage m'a ñëw le micro fait que Aziz moo doon def présentation Aziz, Aziz mon homme, c'est sama frère c'est mon frère. la mu ñëw le micro y a une assistance qui man naa wax ne sama père la mën naa wax ne sama gaayan la mën naa wax ne sama lépp la dafa tawat actuellement nii yéen yi nga xam ne yéen nekk foofu en tant qu'invité kan moom moo ko ci mën a jëlal en charge fajal ma ko benn waaye jóg ñëw yéeg ci kaw estrade bi

waa ji ñëw jël tout en charge tenir promesse am bi ma koy félicité damaa ne balaa may wax daal damay woo ki nga xamante ne muy Alima Ndione moom it dafa ñëwoon jël si trophée ba ñëwee ma ne ko ñëwal yow yaay njëkk wax ma wax ndax dafa bokk ci man ndax doomu jacob la jacob ndion bi ngay dégg animateur pclu waaw alima ndion doomu jacob la ma grand frère jacob moo jur alima ndion famille yëpp sama famille la xam naa leen donc promesse boobu c'était tenu ma ñëw moo ma fayal ak accompagnant bi ma ak moo ko fayal avion aller retour rek lépp lu ma fa mënti def ak lu ma fa mënti dépenser yëpp c'est par le biais d'Aaron Dia de son frère Sekoudja... Dia par le biais de Pape Amadou Il am a mais peut-être un bug, certes C'est xalaatu que je parce que monsieur le maire de la ville c'est ma la pratiquement mën naa wax c'est un piquinois de souche parce que y avait son frère que je connaissais les Moussa Timbo je le connaissais mon ma xam ko donc ñun Pikine ñun ñëpp xamante na ci jamono peut-être léegi la dëkk bi def bu ñëwee ne ma amul problème incha allah danañ ci def dara bon effectivement assistance bi may assister pratiquement mu yónni nit xam nga mooy jox ko soit xaalis wala mu yónni ko ne ko pour ay location mag wala ay kii karan karan yooyu ba ni ma promettre ne ma danaa la may kër waaw en tant sérieusement parlant moom wax na ko wax na ko feneen foo xamante ne tamit dem na këram di ko jaale ma ànd waa rajo ba dem fa mu répété waat mais xam nga mooy li ma la wax rek Isaaxa Diop moom day toog ba yenn heure yi guddi mu ñëw su ñëwee gaare oto mën naa toog fi ba une di du matin mais des fois day am problème pour jàkkaarloog man Modou Gueye bu président expliqué de mais Alassane ngoom moom mooy ki nga xamante ne wax la ko tey depuis que je suis tombé presque def na ëpp na un an tey la ma mujj yónnee sama sol tey tey mardi bii tey ku ñuy wax Njarka Jaañ moo ko indi te moom moo ko daa indi des fois mais su ko mënul indi sax danaan leen yónnee leen biram li yéeg li yéeg li yéeg lii des fois mon day am problème mo nee na pour jàkkaarloog sax mom mais euh, pigine dafa dafa dafa doy war parce que ce qu'on ma ce qu'on ma raconté avant-hier li dal boy boy boy bi bam mu bi mu génnee dégg naa comme daju ndongolo bu ci affluence ci nit man ak mom ñoo nekk lo won Tunisie bok kiko yobbu moma yobbu won ko ma de Jules Baldé Junior fam don fajo fala fajo docteur hôpital bi bim ñewé ñëwee tok waxtaan ak man ak kima ma ànd ak moom fichier tout yépp léegi-léegi boy bi dafa waroon delluwaat mais mbass mee tax delluwaatu donc euh ni dimbali ni ñi waye dañuy jàppale nit ñi man nag du ma taxaw ci kenn ne ko dem di dimbali ma de soo ma jàppalee ma jël parce que am na yoo xamante du mu ci dugg mais nit ku feebar soo ñëwee ne ko doo ko laaj loolu sax kooku da nga faj la bëgg wala nan waxante dëgg chauffeur bu taxawee nag nga ne loo bëgg dem naan jëndal ma mais su du am na ñoo xam mënul la ko wax man du question rajo moo ma may tur man ba may am tur yàgg na ba may football tamit nekk naa espoir aw ma fa place parce que boobu man aayuma ci football certes mais maa ngi ci doon góorlu rek mais bi ma fi jógee li ñuy wax on est par ci ci chez soi jógee fi dem Caaroy gaar jógee fi benn équipe bu ñuy wax mango gi boobu ñu ngi doon jouer ci biir camp bi. mais caaro yàlla di ma dem yàlla ubbil ma fa wërsëg ma nekk fa ay ma nekk fa jour boo xamante ne ci benn équipe boo xamante ne équipe bi parce que existé na mais demeewul woon bi bi ma ñëw yàlla ubbil ma fa wërsëg loolu yàlla moo ko def ci doomu aadama mais Pikine njaga encore une fois ma wax ko gisee Pikine garaaw na trop dañuy suul ndaanaan boo xoolee fii fii ci làmb mu Mohamed ndaw Tyson tax na ñu baat bëgg la am am na ñoo xam ne mag dalaa bari ba pare ñëpp ñi ñuy daw dem ba ginnaaw raay waykat yu bëri yi ngay gis nii yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñu bëri surtout bu nouvelle génération bi ndongoloo am na lum ci liggéey nawetaan bi ngay gis nii yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp nii moom Modou Fall bu teraanga am na lu mu fi def ba nit ñi bëgg nawetaan ba nit ñi di jënd ay jour deux cent mille trois cent man su ma neexee ma ne animation bokk naa ci ñi nga du ma ne man la de mais bokk naa ci ñi nga xamante ne bëgg nañ ko ndax man di ko def ndax man bokk naa ci DJ yi nekk ci ci rajo bokk naa ci DJ yi nekk ci boîte de nuit. man taalibe Cheikh duma du ma duma cigarette duma ma naan duma duma ma tux yàmba ci yenn yi parce que dafa am lumay bañ li nak feebar bi nak duma ko nepp destin la yalla moom ko dessiné dama koy nangu ku ma ci fekk si tammi presiwul ni mu wara siwe dedet peut-être l'arde, mais je sais que ni ko yëg ñop ni ko yëgul mais do len deg do len gis am na ñoo xam ne yoon lañ fi ñëw te il m'était trop proche on était toujours ensemble duñ la sax au téléphone woykatu Pikine yëpp nag laa wax njaga nga woo ma téléphone sax ne ma biram ndax yaa ngi tane neex na pagaay mbay mooy def fu may dem pagaay mu ne ah ma ne ko dama am fu may dem titi fii la ñëw fii na ma def may jox oto ma ne ko non oto bi soog fi gaare tamit wóoru te tamit wut chauffeur rek garaawul waaye may kii rek moom laa lay wax nii certes certes certes loolu loolu su ma ko man déggoo ma léegi moom ma de nit ku feebar da bëgg gis ku la ñëw ne la kaay ma yóbbu la ñu faj la wala kaay ma jàppale la ñu faj la man foofu laay waxee mais soo ñëwee wax ñu toog di waxtaan mais peut-être am na ñoo xam ne mën naa taxaw ak ñoom ne leen yóbbu ma faj ma comme Timbo sama la man na taxaw ne ko eh, Timbo defal ma li ak li ak li ak li te non la koy defé ci mom non koy sax ni probable lay xalat certes mhm. voilà donc voilà voilà le mot que tu as employé la dugg parce que foofu moom peut-être aw sama bougement mooy jafe mais je de connivence di ànd di déggante ak moom ba pas plus tard qu'hier ngoone lu rek dañuy waxtaan man ak moom Tange nuy waxtaan man ak moom ak ñeneen ak ñeneen ah mais waaw loolu laa lay wax nii c'est que am na ñoo xam ne tamit kaay wax la benn affaire. man na la xamal ba pare xam nga duñ la fay après golo loolu teg la foofu te man dafa am yoo xam ne ni bëgguma ci maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp rawatina waa Ovision tey nag dañoo am suñu benn frère laay wax parce que bu ñu yeboo ñu ne frère de sang la ci ñun. parce que ñun ñëpp moo ñu yar ñëpp xam ko El Maestro Birame Ndao mu am ndog bu ko dal El Maestro Birame Ndao nag damay wax ni su moo koy wax ci ci côté yëpp laay laal dinaa laal ci côté làmb dinaa laal ci côté football dinaa laal ci côté musique lépp lu doon yëngatu Pikine même simbakat yi même ñëpp ñëpp Maestro Birame ndaw am na lu mu liggéey pour yow léegi nag. situation bu toll nii mi ngi koy traversé te ñun dañ koo soxla dafa parce que parce que parce que nit Pikine la boo xam ne Pikine doylagul ci moom dañ koo soxla nit nag bu yuuxoo fa mu yaakaar wallu rek fa lay yow jubale gémmiñam ñu bëggoon ñi ci ci engagement ñu ñun soxlawuñ kenn ku ñëw fii indi xaalis di ñu ko jox nañ ñu jëlal grand bi en charge yóbbul ñu ko fajal ñu ko ba mu wér parce que grand bi su wéree rek incha allahu rabi li mu bëgg am dina ko am ci kanam mais nañu dimbalé lolu képp ku ñu mëna dimbalé lolu nak lancé nañ ñëpp ñëpp tal nañ ñëpp loxo assalamu alaykum assalamu alaykum aduna senegal pigine ma leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wacc ak yeen ñëpp waaw man la samba gisee dëkk pigine nekk ci benn moment boo xam lépp pigine la dañuy dox social dox lépp mais tey pigine dafa am lu metti dafa am lu metti trop dafa am soo xam ne dañ see passé dañ see génn mooy lu mel ne kaw abdoulaye am ñu dal te tey dafa am soo xam ne suñu grand la suñu lépp la monument la Pikine lépp Pikinam la lépp lépp si àddunaam lépp loo xool moom laay fam lépp Pikine la muy kan mooy suñu mag Biram Ndaw tey grand bi bu toogee am yoo xam ne ba muutu ko wala am yoo xamante ne mu ngi koy gàllankoor kon tey dépp képp kuy doomu pikin da war a mën a dugal sa loxo te tey Garaam toll na état boo xamante ni nit ñoo ko mën a jàppale par tey toog di wax na loo xamante ni nga jënd ordonnance moo gën toog di jënd ay ndogu dëj ak affaire yooyu noonu Garaam toll na fu mu toll nii soxlawul 200000 soxlawul 500000 soxlawul 50000 francs dafa bëgg jël dafa bëgg ku ko jël en charge yóbbu ko bitim réew mu faju parce que koo xam ne problème bët la am yaa ngi dégg loo xam ne mu ngi gis ay lumière bët yi mu ngi fulu kon kooku naqaru la faj kon kook lépp loo def da nga koy faj ñoo ngi ñaan autorité yu nekk Pikine kii di Abdoulaye Timbo maire de la ville ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan nga ñëw jàppale sunu grand bii di maestro Biram Ndaw kii di Amadou Diola maire commune sunu maire commune Pikine Nord ñu ngi lay ñaan grand nga ñëw jàpp sunu grand bi Biram Ndaw kii di mel ni Lamine Gueye waxoon nga dañuy yóbbu sunu grand bi pour Europe mu faju ñu ngi lay ñaan loolu tamit soo mën a dimbali nga dimbaluñu ci te yàlla tax di woo sunu maire député Salimata Korea yéen ñëpp ñu ngi leen si woo ay Eumeu Sène Pape Diouf Waly Seck yéen ay magu yéen a meeku Pikine te suñu garaam biram ndaw dafa am problème bët jàppale leen si même bool si jàppul seen xaalis jàppale seen doole ak seen xamet gars yi ñoo jàpp si bu baax a baax instant nag xool la ñu waxee ñu sax nekk di wax dañ leen ñaan te yàlla tax dañ leen ñaan yàlla tax ngeen ñoo jàpp si ñu ñëw di jàpp si waaw parce que tey instant yii nii Birame Ndao monument la Pikine Birame Ndao référence la Pikine te ku nekk Birame Ndao même bu la joxul fukki dërëm may la am na lu mu la yóbbul danañ la koy ñaan nag loola amoon lu ñuy wax waaw te nag jàpp leen si bu baax baax lu ñu leen wax rek da ngeen woote 100 pour cent Pikine di woote lépp Pikine jàpp leen si kii grand boo xam ne léppam Pikine la. ak diaspora bi ñoo ngi leen di ñaan tamit di leen wax tamit ngeen gëstu grand bi ku mel ni ay ñoom Boy Thiam bëri na ay doom Pikine ñu nekk Europe ñoo ngi leen ni ñaan xam ne a jàppe sa gannaaw bi rek ngeen jàppati am na fa nga toll du état ku ko diaspora bi képp fu doomu Pikine nekk bu baax a baax nga jàpp si bu baax a baax bàyyiwuñ kenn kenn lenn keroog doju Abdoulaye bi na ñu fa nekk ay nit képp ku fa demoon cent franc cent franc fañ na Abdoulaye kon tey ñoo ngi leen ni ñaan rek seen fukki dërëm seen dërëm nga ñëw jàpp si grand bi ay ñoom Pape Malick Sow ñoom Laye Guèye ñii ñëpp ñoo ngi leen di woo Tafa Diop maam jaara ñoo leen di woo yaa ngi dëgg seexu yàlla bi ñoo ngi leen di woo bu baax a baax ku mel ni Amadine ñoo ngi leen di woo ñoom bàmba ñoom Modou fal ñëpp ñëpp ñëpp ñoo leen di woo tamit Isaaxa Diop gis nañ sa taxawaay bu baax a baax gis nañ sa taxawaay baax a baax Alsaan Ngom borom Ravin gis nañ sa taxawaay bu baax ñoom Pagaay Mbay ñëpp gis nañ leen mais tamit Modou Gueye Baye Aïs Pikine gis nañ sa taxawaay bu baax a baax mais tamit lu ñeen leen wax rek jël leen si jàpp rek loolu la ngeen jël grand bi yóbbu ko Europe mu faju soxlawuñu dara yóbbu leen ko rek mu faju loolu lañ soxla waaw képp koo def nag yàlla dina fay loolu la amoon lu ñuy wax bëgg naa ne bu baax a baax kontaan nañ. biram dañ ko war a faj ma bëggoon pour que véritablement ñi nga xamante ni ñi tey ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi des personnes comme ça des personnalités comme ça parce que Biram est une personnalité war nañu mën a ba nga xamanténi bi di non ko yobbu mu dem faju ci képp ku ci jàppoon ba jëloon ko yobbu ko ñoo ngi lay gërëm ñoo lay sant mais tay les Pikinois war nañ cee def et ça j'en appelle à Pam Ngom Babacar Babacar bëgg naa kooku mu ñëw nag wane Pikinitem mais sax du ma ne Ngom mais ana Anta Anta Babacar Ngom moom laa bëggoon mu ñëw nag na ma jëlal vraiment ki nga xamante ni kii moom mooy biram ndaw ma bëggoon sax mu gën a jege si Birame pour ñu pour ñu toog ma wan leen ne leen tey jii kii ku nu war a téye la ku nu war a jàppale la donc Anta man yow laay waxal je vous ai gis naa la Anta man maa la gis nga wax bi ma waxee dama bëgg li tax ma bëgg du lenn xam nga lan la. moom mooy fi nga waxee la bi may am sa âge nii moom laa doon gisee ne pikin dafa am nu mu war a demee xamal na yow doomu pikin nga yow Anta ñëwal nga jël sa sa sa papa ou bien sa frère muy Biram Ndaw nga jàppale ko may wax ne rek yamuma ci moom tey jii le président de la république muy Macky Sall dama bëggoon kii sunu idole la kii référence la ci biir Pikine ñëw leen ngeen jël ko yóbbu ko ñu faj ko mu ñëwaat liggéey ba mu doon liggéey ci jeunesse bi liggéey ba mu doon liggéey pour jàppale nit ñi di leen bégal ñuy toll ci yenn situation yi sunu frère biram Ndaw vraiment doon ku nga xamante ni kii dañ ko ci jàppale donc euh, bëgg naa nag loolu képp ku nekk biir Pikine rek loo ci mën nga def ko ci je vous remercie. Euh, Pape boobu ngay wax fii la juddoo. kër gi ñuy wax daagu seen laayit Ablaye Ngom mooy papaam ndeela mi mu takk mooy magu Ndaraw moom moo dëkkoon kër maire bi nga xamante ne moom mooy rakku pa Ablaye Ngom papa Ngom sama gérant woon bi muy ñëkk daagu seen laayit moo ko fa tuddee rakkam di fa anami Abib Ngom ak njerka jaañ naar ci laa leen xamee bi ñu koy ubbi en ki ne moo ko ubbi donc xam naa ne yàgg naa foofu te xam naa ko moom bu baax a baax ndax mujjee ngoom su ma xamee xam Tafa Ngom yaakaar naa su ma waxee loolu yem fa rek ak xam Modou Ngom moom war naa mën a xam xam Diaba Ngom tamit. waaw euh, biram li nga wax dëgg la parce que aussi je di même pas ñooñu nga xamante ni bii muy Ndiarka Diagne que je salue au passage mais da ngay xool. ñaata personnalité ñoom ñoo génne ci biir euh, daagu seen laayit boobu li nit ñi xamul. gis nga euh, l'avènement de Jom Mbaye je peux dire que tous ses amis pratiquement bu nu masaan daan bëgg vraiment euh, bëggal seen xol après liggéey bu metti taagu seen laaj boobu moom lañ daan dem toog vraiment euh, euh, kii fa may wax ne Jacob yàlla na ko yàlla yërëm mais Aliou lii jamono bi nga xamante ne bii le frère à euh, Thione Seck kii nun koy waxate ma Mapenda bi mu fay nekk juk yaakaar naa ne daal ci jamono ji ñu toll nii biram ci yow la ñuy wax tey Pikinois yi amel nañ la njukkal nan la ko delloo nag nan la ko delloo donc Anta man j'aurais bien voulu présentement ni avoir son numéro waxumako ko beugumako gis vraiment pour sama bop mais pour qui dit le frère vraiment euh, biram Ndaw mu jappalé ko. mais de grâce dafa am lo xamanteni il faut Moko. wax ko dafa am ñoo xam ne ñew di jël sama dina ñew ci sama feebar di ko véhiculer ci ay Facebook ak ay kéeg yo xamanteni man duma yegg du nit toog na def ci Facebook loo xamante ne man yëguma tinuma ba dan maa ba France naan ma léegi léegi léegi léegi lii di ci nuyu tamit sama copain di jëli fin xam nga ko bu baax mais daal li ma lay xamal daal ci njaga Pikine doy na trop Pikine doy na waar trop Pikine doy na ñu nekk benn poigne noonu lu jàpp du bouger mètre mais nag unanimité mënoo ko am fenn posé naa la benn question sànq boo demee Thiès laaj fa leader politique ñu ne Idriss Seck boo demee dakaar nga laaj fa leader su la neexee ñu ne la Khalifa Sall boo demee Kaffrine tey xam nga ko fa nek ablay ah Pikine kan moy leader bi kan mo fi leader nan juboo nan juboo jappalante nan di jappalante sama daan wax nan lu xol yi andul du soti nan ñun c'est le quart de la population du Sénégal. Pourquoi pas mon nouveau Faut le Sénégal mën nga leader. communes d'arrondissement ban leader nga fi faut buñ ne way fii nga ne Ndongo Lo wala Yves Niang wala Pape Diouf wala kii mën nga koo mën nga leen ko wax te kenn du ko dindi wala ki ne laa Mame Bamba fii fii la fii bokk mais Pikine daal mooy loolu daal mooy loolu nan jàppalante nan jàppalante nit ki su tawatee wala nit ki su amee loom lu soxla wala nit koo xam ne mën nga koo jàppale nga def ko ngir yàlla tax ngir yàlla tax et puis je salue le booy waali sama doom la maa naan ko booy sax mais sama doom la sama xarit la sama booy la di ci nuyu tamit manager am Njaga Sàmm bi waali def jëndal booy Abibulaay yaayam Abibulaay jëndaat na mu jëndal yaayam kër loolu c'est un geste Rama Maki je te salue de passage avec toutes les autorités qui sont à Pikine nan laab xol yi indi ko teg man la woon Biram Ndaw seen xarit di ñaan ngeen ñaanal ma rek ba lii tegee merci. la daan naan di jaar xaw ma fu buram tahu xaw na fu la ndaan sama sama ba lagi sama sama mangga desa des sana koñ dina nu me nga des saañu yéenoo ya. ya, bëgg di waaye dimanche jubule du magi VIP yaay magi sering Mbacke magi los jaayta maga njaga ñaay biram xaw ma la daan naan di jaar xaw ma fu la daan naan di jaar biram daw xaw ma naan di